baax dama ñëw sa kër awa ci sa meer bu ni tukki woo faroo tukki woo yaar kenn tukki wu la maa ngi ci ki bis laay maa ngi dugg xeexu miis di ko fii di ko fii maa ngi dugg yaa ngi dugg tàkk de ñëwal yaa ngi dugg xoolal kër gi ñaari parlant su ma neexee damay nekk jëbal su ma neexee taxaw ma ne xëy na ku ne neexul da nga ci bokk mbaa la nga bëggoon gisuloo ko ngay saboté ñoo neex na ba yàlla xam nga doo seen wër waaw déedéet man man fii nii bu ma jàkkaarloo Aïcha ak Miss dootuma nam sa taas te lii may wax ak yow ma nga may bëgg sama maam booba laa gën a nekk xale njëla ñëw nii may ba bëri dee mu yow da ngay waaye am li nga ma ci may yaa ngi sama rakk bi defe naa ne may ngeen ma ku nekk lu ñoom bu ma xoolee te lool sax taxu may wax. dëgg la de. gis nga li ngeen ma may lépp xam nga lu ko dàqal. barke Seydina Mohamed li ngeen ne la ma ko dàq. ndax retour ba ma ca di nit ku yow bu yéen waxtaan. lu mën a ñàkk lu a ñàkk ku yam baax. dëgg la na nga gudd fan. ku ne am yàlla na gudd fan. man de dañ ma vidéo léegi man leen miis ak ay sarasu ñi may jëw ñi may jëlee taan day raam. ma ne ko waa léegi ñoom ñoom dem nañ seen dem léegi bett nañ ma may jëw ñu ngi jëlee waaye sama xol bii dafa sedd. waxuma wax bu wax bi ma wax ndax yàlla rek mën a defar ay dañuy génne rek taxaw di wax. dëgg la sax dañuy àgg nga juum. dëgg ku sa coono. dëgg wax ñëpp di la dégg. dëgg la wax lu jub. Mm-hmm. mais yàlla a mën a jub. ATS. da ngay wax lu jub. Mm-hmm. mais yàlla a mën a jub. wax jama wax. ma mm-hmm. tax xëy na lu bari. nit ñi rafetlu ko. li ci man yëf yàlla ëllëg mën na maa ñëw li fekk la waaye fekk naa Aziz Ndiaye nekk nag macha allah bu baax damaa fekk na mu defar ba pare maa yokkutee dolli dolli waaw xam nga dëgg waaw Aziz su jëla day tudd yow waaye Aly Ndiaye bàyyi yàlla gudd fan ndax boo yoree góoru personnalité góor bu xam fi muy taxaw mhm. fonk njaboot fonk ndayam mën a tërali jigéenam da koy ñaanal gudd fan dëgg la man fu ñu nit toog sama sa balaa mhm. <laughs> yow xool mis teew ngi mis dee ko laaj li nga war a dee ko wax mis ka moomee waaye ñaar di daal yàlla nañu dugg ba nga dégg ci turam. amiin amiin. yàlla nañu ko defal sama teew. maa suuf sa baay. nii ma taxawee ci xewu Aziz Ndiaye bi noonu rek lañ taxawee ci. waaw bu góor bi sa baay lu rafet rek la war. Farba sa jëkkër ne la joxe yi dafa bari doom dama ko doon fekk marché seen nga muy jaay di lal taatu. dëgg mm-hmm. nga xam ko lool sama man. bëgg ma ba foo ma fekk lay sa wërsëg da koy jël dina ko sama waa ji. yal na sa jàmm yàgg. amiin ba su ma la fekkee fii nga ànd ak Rose dama lay wax bu baax. jikkoo ma mbala ñaanal Rose yàlla nga def sa bopp. dina xamal ne miis mii bàyyi jooju. déedéet waxuñu ca yaay ju dee. loolu laa ko wax léegi ci vidéo wali mata taaw waaw di jëkk a juddu. ñëwal wali mata mi jëkk a juddu. jëkk a baax. baax ak kuy defal baax. waaw waaw sama wax bëriwul de. déedéet mais dama lay doon dafa kontaan. parce que lii nga wax nii. boo hmm. dëkkee dëgg. waaw adduna bi dafa jaxasoo. toppal ci sa ginnaaw mag. ay waaw la ko wax dëgg la. ni nga dajeel ku baax la. waaw sama rakk ci umra la ñu doon. ma sopp ko loolu dafa dem mu maral ko. dem gis sama càmm ñu wax ko ne sa jigéen ñi. keroog enveloppe ba ma ci Rasulullah jox naa ci biir. waaw tey ñaan ànd bi yal na sax. amiin yaa ngi lay topp ci ginnaaw ndax gis nga bëgg. waaw taxawaay gis nga man su ma déggee Fuuta. damay daan. damay mooy dëgg foo fekk si. waaw waaw jox cër bi mu. waaw waaw nga xam loo fi mu jaar. jërëjëf jërëjëf Michael! ca front de terre. laal def entrée plat ay entrée de jaay jigéen ci sol laay a sol jaay jërëjëf ñun ñoo baax ñu la bëgg parce que moom sama papa la bëgg. jërëjëf lu mu am ñoo ko bàyyi ci moom. jërëjëf sax bu ko jëndee boo ko nee neex na mu tekki na la am tey. jërëjëf Ndiaye jërëjëf boo waxee mu ne yéenay sama njaboot te loolu mooy dëgg. te muy dëgg ba nekk fi tey waaye comme yéen ay mbokkam ngeen dama leen koy seede. te muy dëgg kontaan nañu ci moom te bu muy taxawee ak ñun moom sama yaay muy dund sama yaay dafa feebar feebar bu yàgg mujj bi sama yaay dana tudd fenn nit dañoo xam ne bu Ndeye Khady ñëwul doo defaraat sa toogaay ma ne leen toogaay bi la mës a am même bi sama yaay nekk mm-hmm. dëgg sama bàjjen yi nga xamante ne ñoom ñoo leen gën a seen ay bakkan mm-hmm. ñun man damay wax ne sama enfance xaw ma ay bàjjen yu def yu ñuy def ay yu métti wala ñu ñun ñoo leen gën a ay doom yu ñu jur sama beneen rakk papa bi démb la ñu bi ñoo leen gën a seen bakkan mm-hmm. dëgg la wallaahi amuñu seen fay papa yal na leen yàlla fay. amiin amiin amiin yal na yàlla def sëy bi barkeel bi man laa gën a miin ko man. miinu ma torop. mais nag moo ma doon wax. waaw man mii laa ma ci doon personnalité. mu ngi noonu. waaw mu ngi noonu. bu xam lu mu ko xale bu baax la tout le temps nag moom ma ko doon keroog bi mu ñëwee naka mu génn Aziz boobu ma yéeg muy cité ma ne ko man de xaw ma ko comme xam ko tout le temps bu may gis moom ma ne ko je sais qu'il est responsable parce que ñëw na fi benn jour boo xam ne ñëpp mais dafa ne maman du ma dugg si kër gi parce que sa papa nekk ma ne ko loolu seede naa ko yeneen yi mu naa ma ne ko Macky moo ma ko wax si moom ndax moo ma ko gën a miin mm. ma ne ko mais ñëpp nee na qu'il est responsable macha allah xam na lu mu bëgg te am na respect loolu doon alhamdulilah ñu boobu loolu laa fekk te loolu laa xam yàlla yàlla dolli jàmm yàlla yàlla fay na ma jaay bi ñu jël si ñu yóbbu sa papa leen ñu ne ko maama leen nekk moo wax boppam ba ci hôtel ñëw yëpp ci xaalis bi jox ko sama man bi maa ko ak yàgg ni sama war a njaay balaw a jënd nga xam ne Kër Joor bés bi mën lañ ko féete lu waay saam nag moo koy tonni lu waay saam doo ko tonni nit lu baax te miis baaxam bi ñëpp la ko yemale ñëpp la ko yemale bi daa wala ñëpp la ko yemale miis amul façon miis yorul ju koy dara ndax ju koy dara tey dangay yéeg ëllëg nga wàcc ndax fii lu ne xaw na fi lii lu jóg jub sax loo ko tëye xam na ko du ñuy bore du ñuy bore miis teral naa leen barki déew du dafay ñëw su ngoonee ni ngay fies si su ko neexoon ni man ko ñooñu wàccoon naa joxe deseel la rek loo jox nit am na ko. waaye yëg ak safoo bi ak faale bi moo dàq leen ay soo sool mee tamit di noonu. Ah, ay soo sool benn yoon lañ mos a gëstoo muy biñ demee mag man ak anamu ndaw ay soo sool xale kese la. xale kese kese kese kese la wax naa ko Maka ah, wax naa ko bëri démb bi ma taxaw nii. keroog ah ah dama doon wax dama ko wax dama doon wax topp si miis. man la nee ma ko ko fenn. ma nga ne ay solution la. ndax xam nga ci liggéey li ma lay wax ne loolu amul seede ba bu ko na parce que sama bëñ bay léegi nag ngay jaay ah xam nga xam nga may seede wax daal xam nga may seede wax bu ñu ko. Serigne Babacar amaguma 40 jours ñëpp ko sa ñëw te kenn yaralu ma fen mm. ndax bu dee bu sore Aziz Ndiaye mu ma njëkk a wan yeneen yu baax muy sama rakk di sama xarit barki bi ñu àndee dem si bi ñu demee benn wax la ñu daw sobu kaari dañu xee mun a mun a taxaw leen jëpp la ñu jëlal kenn ku nekk mu fay mille dollars mu dalal ñu hôtel yi gën a cher ci Médine ñu nag ngay antal ñi ak Ndeye Ndiaye maa moom ñoo bokkoon benn néeg Aziz Ndiaye du ndogu ji te ñu ñu moom Aïcha mais bi ñuy tawaaf Ndeye Anta nii gisul Aziz Ndiaye man Aïcha la jiital teg ma ci teg ci Ndeye Ndiaye li ñu teg bu ñu réeree sama yoon néeg ñoo ànd di wër kaaba ba ñu ñëw mu ànd ñu daw safaan maro ba ba muy wàcc sax daa ànd ñoo fa muy wàcc jëkk na xaalis baree bari jox ne ànd jox ñu ñëwaat mu màgg ñu jamat ñu defa ñu jëkk ba jox ay sool mi li ma ciy seede di ko wax barki sëriñ Babacar sama jëmm laa bi ñuy ñëwee ba ci buntu kaaba bi xamoo lu mu wax nu may def bu xew baa nan laay def eh ñu ne ko bu xew baa xam nga nooy def boo soloo ba jeeg nga ñëw ànd ak Miss Ndiaye ngeen doxal yéen a samay doom mu ni bu ma waxee lu ma demee lu may defe man ko soo demee waxtaanal ak sa yaay mm-hmm. waxtaan li nga bokkal ndey ak baax loo man defal def parce que Serigne si buntu Kaaba la ma ay sa doxee loolu xanaa comme du ma ñëw ba Sénégal di ko ko fenal xam nga boo babee nit ñaay wax sama bëñ mooy metti moo tax bëgg ma woon a maa ngi wax léegi loolu bi nga keroog nañ ne sëñ bi damaa sa ma doon leen di saa leen Miss Ndiaye nii sama jaat ma nga xam ne ma damaa nopp baale. ah man laa damaa nopp baale man. waa ñeent Miss lay nooyee. sax ajjuma rafet danaan yaay damay dem yoo barke Serigne Ba ko mu sol rafet bu di yaay nangu ci ak ci ngénte te bu boobaa yàlla bu kenn na ñëpp fekk ko doo lu sens mérite la doo ko tere leen dara jomb ko Aziz Ndiaye sékkul xale yi man yoo xam. nee na loolu nee na. dina am beneen nee na dana bëgg na am si yow. yàlla la. fi Aïssa ku koy nangu. mi ngi moo koy nangu. moo tranga Aïssa ku koy nangu. e sama waay ji moo koy nangu. dama ne xoolal. moo ñu jox na ko. e xam yaa du yaay ma. soo ko nangoo fii nag jéem bokk fi taal. waaye Masaka ku koy nangul. Masaka ku koy nangul. et dama ni njëkk a. et dama ni njëkk a. et dama ni njëkk a. te ñaanal lool nga ñamay seetsi wuy lool sama jamono loxo wan ma luy mbëggeel façon dinaa Senghor que xam ma bés xew bi yaa ko jël. Eh, ay si jëlu ko miis jëlu ko mais maman jëlu ko yow mi yaa ko jël. parce que sa liggéey dafa rafet. Ah. da ñëw féete ñaaxaan naa digal nit lu baax. defal nii defal nii. tey àdduna amul solo lépp dañ koy rafetal géwél bu yàgg ba noonu la daan def. waaye looloo ñu war. waaw waaye benn bëreetu wax ci naa def la def mën naa yàq. waaw waaye defar lu bari waaye dafa bari personnalité ca defar na këram ba ñëw rek yokk cere dolli ñeex. waaw rafetal ba mu gën a rafet. waaye sunu càmmiñ ne dañu koy ñaanal yàlla guddal fanam ba ñoom ñaar ku ci nekk li nga bëgg ci sa borom kër yàlla defal la ko. daal góorgóorlu man lii rek laa ci bëggoon waaw léegi nag miis laay dénk ma. man ma nekk miis dégg yu baax yi ñu wax. waaw dégg yu baax yi ñu lay wax yàgg gën yàgg gën nag barke Sëñ Fall yàgg gën. Euh, euh, ay siñoo la waaye miis mi nit ku baax la te nag nee naa la xew mi ku ne neexul rek la nga bëggoon di ko séentu moom nga gis xew mi neex na neex na rek la nit mën a wax waaye beneen saboté bu nit mën a def rek mooy bëggoon nga kalan am fi wala problème am fi ca gisoo ko sa fii di nit dégg macha allah waaw te ñii nag yàllaa leen def ñaari xale yu jigéen yi jongomaan yi dara du am lu li rek ma ne ko ñaari xale jigéen ñi macha allah jàmm rek a fi am jaay jaay loolu boobu la nee naa xew bi neex na bare na jàmm macha allah waaw vraiment na sax ñuy kontaan day sax amiin sallallahu alayhi wa sallam dama ne la sama doom bi neex naa xelal vraiment xale kese la ànd ak euh, man te vraiment lépp yàlla da koy déglu yàlla mu yàgg déglu nag mu yàgg déglu lépp lu nu man ci lu baax pour moom ak madame jii ñu nekk ci jàmm ci kattan yàlla ndegam ñi boo nee Aïcha dafa yaru loolu war naa mën ne. parce que nitu diine. dafa am lu ko yar arxuraan. ku yàggul dara. wane nañ ko muy joxe ndogu. parce que nitu diine la nitu valeur. kon nag. yeneen yàlla lafal cat rek. yàlla lafal cat rek bàyyi ko la ko nan di waxee. yàlla na mag na raq topp mag. mag yërëm. mag yërëm kese. jëlal. xale demul. jëlal. damay yëkkati benn xale dafa naan la way. li nga xam ne baax kenn na ko waaye lii fii ñu xoola dañuy sant. wala nee na nga waxaale ñëpp jaawale baax. dañuy sant papa yàlla ko ci àjjana. ndaxte lépp lépp moom la. lépp lépp lépp lépp lépp sama papa. di ñaanal suñu yaay yi lan la ñu ko yàlla bàyyi. suñu tàmm ñi tamit ñoom it kenn gënu ne baax waaye góor xamul dara. ah seen jabar yi la ndax góor xamul dara jéeg jëpp a baax waaye nag bu ayee toog ay toog weer këxële waaye nit jaay nii li ñuy wax bërki démb ba léegi rek boobu mën ta passé kaw

ñibbi nag jamaa dina leen mere de miis miis bàyyi leen ma ñibbi nag bàyyi leen ma ñibbi nag miis xaalis bi lépp bëri na